asalaamaaleykum maa ngi nuyu Sénégal gi yëpp di nuyu ku nekk turam sa sant ñu commencé ko ci président bi de la République di nuyu tamit Marème Faye Sall première dame soo gisee nag tey vidéo bi may def li ko waral mooy suma rak suma doomu day Jules Baldé Junior moo tawat. ñu soxla ci aide soxla ci ñaan soxla ci ndimbal di ci woo tamit aussi ñi nga xam ne tey premièrement mooy ministre des sports Matar Ba suma xarit ñu la ci woo bu baax di ci woo tamit autorité Pikine yëpp di ci woo Abdou Karim Sall di ci woo Ablaye Timbo di ci woo tamit bépp autorité bu nekk Pikine man Eumeu seen maa ngi woo ñëpp ak sama mbokk mbër yëpp ñu jug jàppale suñu doom doomu Sénégal doomu Pikine kon tamit autorité Pikine yi bon ñu ngi xaar tam aussi seen ndimbal ci ci feebar bi di sant ñëpp di nuyu ñëpp di nekk si turam santam asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi wax nag ci xew-xew bi am muy feebaru Jules Baldé junior di waxee nag ci ñaari tour di wax nag en tant que président des lutteurs en activité ni li xew feebar la boo xam ne wax dëgg yàlla ku ci nekk war nga ci dugal sa grain de sel ku ci nekk war nga ci dugal sa kàddu ak sa doole ak li nga am parce que nag feebar ku ne lay dal ak ku ne da nga soxla ndimbal ñu ci woo président Macky Sall ci woo soxnam bi nga xam ne du tànqamlu aji ku tumu tumuranke du tànqamlu koo xam ne tamit dafa soxla aide ñuy dégg yi muy def di ñaanal suñu rakk jooju yàlla fëgg boppam di woo autorité Pikine yëpp nag parce que Pikine la dëkk te Pikine euh, bari na ay autorité yoo xam ne ña nga fa te nag wax dëgg yàlla duñu tànqamlu doomu aadama di wax rek ku ci nekk na nga dugal sa loxo commencé ko par man mii nga xam ne je suis le président de leaders en activité di woo sama mbokk mbër yëpp sama xarit yi sama am di jàmm yi sama supporters yi ñu ñu ñu yëkkati seen doole seen am-am ak seen man-man def ko na xale boobu jóg ñu ngi koy ñaanal ñëpp jërë ngeen jëf